jóge ci Sénégal yi projet dem ci Sénégal goo xam ne ay coppite yu am am solo lay àndal loole mooy bëggu-bëggu waa coalition Dionne 2024 seen programme si lu ni mel lañ ko tënk ñoom daal soppi doxalin la ñuy wootee bëgg ñu yeggali lenn. d'accord ngeen chaque jour ay milliards yi milliards di dugg ci réew mi te nit ñi di gën a pauvre boobu continuer ngeen bëgg ku ko bëgg dinañ la baat. mu wóolu nag boppam lool moom Mahammed Boun Abdallah Dionne gannaaw xam-xam bi nga xam ne jëlee na ko bi mu nekkee si nguuru Sénégal li mu bëgg daal mooy samp fi loo xam ne nii génération génération yi di ñëw ñu si gis seen bopp. Macky Sall sama patron patron un jour patron pour toujours <laughs> dañoo ànd liggéey ci réew mi mandat bu njëkk bi yëpp projet buñ fi tabax ba ci BRT bi man la. Mohamed Boun Abdallah Dionne ak ñi mu àndal Sénégal la ñu fas yéene dekkali teg ko ci raay yi développement. soppi doxin nag ni ñu koy defee mooy fexe ba fondation yi Sénégal defarwaat maanaam li ñuy woye kumba am ndey ak kumba amul ndey jóge ci dëkk bi mooy li ñuy woye justice. justice bi nga xamee ni moom moo war a defar am réew dafa am nu muy doxee donc dañ ko war a defaraat tëggaat ko ba ku ne gis ci sa bopp loolu nag dafa ànd ak li ñuy wax la réforme territoriale. ñii di jàppale kii fi nekkoon élimaanu jëwriñ ji ñoom ñëpp teewe bi la jotaay mu nekkoon ndaje goo xam ne fësal nañu si it ni ñu tëddalee seen directoire de campagne programme bi ñu siiwal tey jii daañu si andi ay coppite yu ndaw fi lekk rek ñu koy yeggee askanu réew Sénégal si campagne électorale yi ñu dëppmal ñetti fan si weeru février atum 2024